ñu ñu ñëw ba tey euh, woy ci li nga xamante ni ñu ngi koy tàmbali nag euh, di ko taqal mbër yi mhm. nga xamante ni euh, ñu ci bëri rafetlu wuñ ko waaye am na ñenn ci sénégalais yoo xamante ni dañ ne effectivement ça existe mooy nervi yi ñu commencé dégg te ça mooy lan maanaam lu nekk la lu am la mhm. lu ku ci mel ni Eumeu Sène taqal nañ ko fi ne moom day engagé ay mbër di leen def ay nervi di leen présenter politiciens yi mhm. parce approche bi nga xamante defoon na ko ak président de ne sax léegi moom moo koy recruter euh, yow mi nga xamante ni nag ku yàgg ànd ak sa yaay Woré saar nga mu yëngu ci politique mm-hmm. nga xam ne aussi nekkul loo xam ne c'est pas évident euh, bëggoon nañoo xam aussi taxawaayu guy gi par rapport ak loolu nga xam ne ñu ngi koy commencé di ko takkal mbër yi ñii nee nañ dëgg la ñii nee nañ du dëgg ñi nga xam ne ñu ngi koy def ban message nga leen di lancé ak ñi nga xamante ni aussi ñu ngi jóg pour yàq lan nga leen di wax waaw côté boobu nervi yi balaa maa jàll foofu damay nuyu sama yaay Woré Sarr ba pare suma yaay la suma suma lépp la mm-hmm. man dama ñëw yàlla boole ma ak nas la ma booleel muy doom ji mm-hmm. ñu ànd man ak moom mu tëggal ma ñaari combat ma dem ba koy dawalal mm-hmm. ma dem ba benn bis tëbaski oo ma tëbaski mu jox ma xaru tëbaski ma dem ba mujj gi ñun mu dem ba maire bi maire bi man góor sax laa ko tegoon maire maire bi may dégg maire boobu comprendre ma maire. Mhm. danga dem maire mooy. mooy maire maire mooy ah, voilà ma ne ko. Euh, fekk ma naan sama sama yaay moo la jox lii moo la jox la su ma amee combat quoi. Mhm. ba fi ma dëkkoon au passage du nuyu Aïda Sarr. Mhm. fi ma dëkkoon quoi. mu ñëw ne ma bu la yàlla suturaale teral la da ngay changer dëkkuwaay. maire wala Sarr utal ma comico foo xam ni location la joxal ma ñetti kii. ma ñëw konne di fay. nekk fa euh, yàlla def ñu. sam papa ñëw fa gis maire bi génn sama loxo ci moom sama papa kenn gunu koo bëgg doom ci bakkan bi la ko teg mu ni ah man de sa digganteek moom waree moom du ci kii sama yaay tamit noonu sama mhm. fere ñëpp bàyyi maak moom mhm. yàlla def comme nii ci gàttal buñ ko doon jël mënu ci jël temps bu gudd mhm. ñuy dund ba euh, nas am ma ma man ma am mbébit ba ba di ko wax naan su ma amee doom dama ko tuddee nas ma dem ba mujj gi euh, nas njëkk ma am doom bu tuddee ma ko. Mhm, en grande surprise boobu maa ngi États-Unis. macha euh, moo moo ma woo. Mhm. na ma Sayar euh, euh, sa Sayar Sayar Sayar Sayar Yaare Faar tuddee nañ la doom xam nga Bouger moom daa mën a fen. <laughs> Sayar Yaare Faar. mooy Këccëg. Këccëg ba ak a mën a fen. sama doom la au passage maa ngi koy nuyu. <laughs> mënuma Sayar Yaare Faar mu ne ko luy loolu mënuma nas tuddee na la doom kër gaa ngi toj. boobu nag góob ma ko quoi mooy moom comme que moom xam nga. Mhm. moom dafa bari lu may def loolu waaw parce que am na benn bis ñu demoon euh, ku ñu woowoon fële euh, ku ñu woowoon boori mbuur. Mhm. ñu dem fa <laughs> bañ demee moo ci mbalak quoi moom xam na loolu ay détails léegi nag loolu laa defoon lay mbalak far yàlla tamit ñu woo ne ma dëgg la kon loolu amul la boo xam ne bu ma bett la. man mhm, tamit yàlla def yàlla def ma am doom bu jigéen. muy jigéen ma bëggoon ko tuddee nas ñu ne ma loolu amul <laughs> ma tuddee ko njëkkee bi magam caama di ko nuyu au yàlla def boobu mais moo neex ne dama bëggoon yàlla dem boobu ba tey ñuy dund. muy Adama muy mhm. Teda muy Mambay. Mhm. Mambay France buy ñëw sama séddee ci la may njëkk indil. macha allah Teda waxi noppi. Mhm. maire bi. Baye Fall. ba ci euh, euh, Cheikh Fall moom ñëpp fa maire bi. dañ ma bëggal seen bopp. da ñu dem bo jàpp jàppewuñ ma comme ku nekk ci làmb ji ak euh, amitié bu xamante dañoo dem ba léegi deret la. su kenn amee problème ak man sax day dem wax ko Woré Sarr affaire yooyu. bu ko defee maire bu woo ma. ma mhm. bàyyi mhm. duñ si wax sama papa lenn luy lijjanti maire bee koy lijjanti léegi nag ñu dem ba ci biir. Mhm. def gars yi nag dañoo defe ni man politique Woré Sarr ma ci dugal. man politique Ablaye Wade. jeunes yi ko fal bi muy falu man ci laa bokk parce que sama sama benn papa bu ñu wax Talla sénateur la woon. wala saar xam sama yaay wala saar xam na ko. d'accord far yàlla man Moustapha Niasse Moustapha ñëw. élection boobu Abdoulaye doo jël réew mi. Mhm. moom AFP la woon defe naa Moustapha Niasse waaw. non AFP waaw AFP ma jël photo Abdoulaye Wade taf ko ci pare-brise bi. Mhm. ne ko génnal dëkk bi soo pii soo pii. Mhm. boobu Mor Faram la àndal. Mor Fadam la àndal ma ne ko Mor Fadam yow bu la Tyson jàppee. Mhm. boobu mi ngi war a bëri Tyson defe naa Gambie. ndeysaan kon yàgg ngaa bëgg. politique waaw sol ay tànk noonu lañu génnee dëkk bi. mais ma ñëw nag fekk su ma yaay waree Sarr bëgg Ablaye Wade. Mhm. ñu yem ñaari jikko ñaari ñoo xam ni góor lañ duñu war. Mhm. li ma gën a bàyyi ci moom mooy loolu. am na ñoo xam tey ànd nañoo moom ñëpp cuub nañ seen drapeau du ma fi nekk di tur ay tur boo yóbboo vaar dem bu yàgg. mais man li ma xam ci moom ma gën koo téye man xam naa ko moom tamit li ma xam ci man ba def ko ci man gën maa téye moom xam na ko kon kóllëre bu yàgg xaaral rek muy ànd bu dëggu ko mm-hmm, mm-hmm. Wara Sarr musul def politique ci buntu këram ma fay jaar sax mu bëgg ma jaar fa daf ma sàmmal suma image buggul sax ma dugg comme côté nervi yi laa lay expliqué rek buggul sax ma traversé des fois nas lay àndal wala aadama su ma woowee nas nas sax damay tuur la ndam ne ma sama yaay nangam te da na ma fay ñëw ba fu muy def politique ma teg fa sama tànk di ma sàmm di ma sàmmal sama image parce que moom jàpp na ne rek su ma ànd ak moom rek mun na mun nañoo xool bëdi kon ni ñuy waxee noonu kon defe naa ni kooku bu ñuy wax nervi di ma tudd di tudd Wara Sarr Wara saar moom sàmmal na ma sama image nervi nag dafa am ak ñoo xam ne nii dañuy wuyoo tur nervi te duñ nervi mooy ñi ñuy jël dina fay pour ñuy dóor doomu aadama yi te ñu ñu sàkku ci mbër yi ndax ñooy lañ. non non non non léegi da ngay gis ku ngand mel ni ñeexu ñebbe yooyu rek ñu naan la. Mm-hmm. mbër nga non mbër yi am nañ formation bu ñuy def garde rapproché dañ koy liggéey ok euh, Ousmane Sonko am na benn garde góoram boo xam ni kii euh, limousine mhm. mbër la bër na fi ay combat ay combat mais métier am la da ngay gis da koy teg ci normal ak yeneen ak yeneen ay mbër ay mbaytin yi tey am nañ seen carte seen carte formation dañu sekk ay b de mooy sécurité tey euh, maali kii Ahmed Aïdara xam nga mhm. kon ñooñu ñi ngi seen liggéey boo ko ak ñoo koo xam da ngay fekk ko toog mhm. nga ne ko dix mille francs ngi trente mille francs ngi nii yëpp ko ci 4-4 wala yëpp ko ci ëll deux cent ne ko nañ dem ci àll bi su ma nee diw diw diw moo gën buñ tàccoo d'accord su ma génnee buñ tàccuwul wullil bam nooy hmm. ñooñu dañ leen a fay pour ñu dóor kii mais ñooñu mhm. dama yàggan seen bopp yi neexul parce que tey population ñu ju ñu ñu bëmax la ci population mhm. ñoo xam ne say frère lañ mhm. am lu leen metti ñi say pap am lu leen metti seen yaay am lu leen metti ñun la dóor leen yow doo doo xalaat bien sûr loolu moom bokk ak affaire yu mbëri dara. Mm-hmm. affaire Eumeu Sène bi ngay wax. Mm-hmm. man du ma miimal Eumeu Sène du ko seetal duma ko mais li ma xam ci moom. Mm-hmm. en tant image bi ma xam ci moom. Eumeu du def loolu. d'accord mais dafa bëri ñoo xam ci réseaux sociaux yi nag léegi dañuy taal seen télé rek taqal gor. ci bëri. wax lu leen neex taqal gor. fayee kuppi ñu naan dañuy xool am na looy fayeeku vie xaw am nga looy fayeeku wala yaay nak di wax. gis nga réseaux sociaux barki Seydina Mohamed fekk taalul senegal yàlla tere duñ duñ ci def attention. lu leer nag laa lay wax. parce que bàyyiwuñ ci xel impact bi. fekk taaluñ ci taaluñ ci Sénégal am na dëkk bu rajo taaloon. Hmm? indi woon guerre rajo xaw fan. Mhm. am na rëkk bu bu bu rajo indi woon benn dëkk. boobu damay mhm. fàtt tur bi dëkk africain yi. que communication bi léegi dafa gën a rapide. kenn taal sa kii yàq nit kii yàq nit kii yàq nit mel ni ñoom ñoom moom Sénégal wala ñoom te réseaux sociaux ñoom xamee wuñ ko noonu ñun ngaaka lañ ci. Mhm. ñun ngaakal lañ ci réseaux sociaux. Mhm. mais bu fekkoon tey ñun xam nañ dara ci réseaux sociaux duñ ko dundee noonu. macha allah mais nag dangay gis koo xam du ci xam dara toog koo xam n kilifa ak i njabootam. dagg fu mu gën a ñaawe muy seetaan ngay uñu lu mu gën a ñaawee ngay wax te leer lay wax ni amul. Mm-hmm. ñooñu lan nga leen ban message nga leen di lancer. non di wax ne yàlla yàlla gindi rek bu ko defee ñoom ñu xam ni. Mm-hmm. loo wax waajuru jàmbur moom nga ko delloo sa waajur rek. loo wax nit ki. Mm-hmm. moom nga ko delloo sa bopp rek. tout à fait mais munoo toog di wax nit ki loo xam ne leer na lii amul. wala ngay wax ci diw boo xam te bu la newoon diw nga mel ne moom da nga di fajar jot. pour nga mel ne moom nga mel ne moom. mu gën la ndey gën la bàyyi. ngay wax ci moom. temps bi ngay am. di ko def ci YouTube bi. Mhm. di tooñ di saaga. da mhm. boo ko liggéey woon da ngay nekk ci leneen. d'accord hmm? da ngay nekk ci leneen. mais toog di wax di wax di wax di wax lu la neex ci mhm. dëkk bi. te li ngay wax xamoo ci daara. di man mun nga affaire lu la neex mais. li ma ci gën a déranger mooy saaga yi. rafetul parce que damay gis ay images yoo xam ne ay kilifa diine la ñuy daggal. barki sëy damay tiit. te loolu da ngeen a comprendre li may wax nii. mu yéex mbaa mu gaaw bu arrêté wul. dinañ indiwaat li vaar de yàlla nañ suñu borom waaw dinañ indiwaat yàlla nañ suñu borom réseaux sociaux mën ngaa toog mhm. yéen nit wax sa xalaat waaw wax sa xalaat def lu la neex mhm. wax sa xalaat comédien comme ne gars yi defee nii ré affaire yooyu wala nga yeete wala nga def leneen ak leneen wala nga jàngale effectivement waaye salaamaaleykum dinaa na dinaa la na laa illah damay sax tiit da ngay te ñooñu la ñuy gën a seetaan wallaahi ñooñu la léegi bañ nañ ko ba léegi dafa am ñoo xam ne dañoo def yëfi dof dañ naan bu ñu deful yëfi dof duñu am xaalis. waaw mais boobu culture la jékki-jékki rek ne ma la ñuy seetaan maay def yëfi dof. maay wane tat ma la ñuy seetaan maay ma la ñuy ma la ñuy seetaan maay saagi kii ma la ñuy seetaan wala nga gis koo xam ni tey day mbubboo sëriñ toog di wax waxi taat ñu ni garaaw léegi am na buzz. dégg nga non si.